ko ci kaw wen bi hmm? barke Seydina Mohamed jël tatouage Serigne Touba ne dumm weenam ne nii muy paccal ko xale yu jigéen ñi seen i ndaw jeex na bu yàgg naanam luy loolu si xale yu góor ñi màcc nañ leen màcca màcca màcca màcca xale yoo xamante ni ni seen yaay di doxee la ñuy doxee dañuy toppandoo seen yaay seen yaay am nañ habitude bu bon. dañuy dox di laal seen wenn di dox di laal seen taat yi. xale bi yaakaar ni loolu charme la bu bokk ci dox. muy doxee noonu comprendre nga. façon texte yi ñu utiliser wax yi ñu utiliser yooyu noonu yëpp. dafay dafay dafay dafay joué ci xale ba. bu demee da ngay seen école sax da ngay gis xale bi moom moo fi ëpp xel. wacce ñu leen di béggewaat di leen siyaar di leen titro di leen damo di leen safo di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni nag fi la xaru Tamba jaare nag jur bu dama jommi ci réew mi fi mu toll ba tax sama jigéen nuyoo ba pare nuyoo yow. asalaamaaleykum maa ngi nuy waa kër gi hmm? di nuy képp ku ñuy seetaan di nuy képp ku jël sa connexion di rey sa temps ci ñun maa ngi lay fekk fi nga toog na la loxo di leen ñaanal nag ñu commencé bisimilahi yeggale ko alhamdulilahi rabbil alamin li ci jub suñu borom la li ci dëng ci matadi doomu aadamal xam ne am yéene rek bu baax pour defal leen lu baax tegal leen ko ci taabal bi bu ko defee damay doxantu ba ci hôpital di ñaanal ñi feebar ñi nekk ci hôpital ak ñi nekk ci biir kër yi te amuñu lu ñu fajoo yàlla na leen yàlla jàppale ñu dellu seen sago ñu nekk ci néeg yi lëndami muy euh, fi ñu tëj doomu adama yi yàlla na leen yàlla suturaal ñu génn bala leen fa dugal bañ leen fa delloowaat di ñaanal way dawlo yi ñu tëdd defaluñu yàlla lu tax suñu borom mere leen yóbbu leen ñun too ñoo ñu ne defaluñu yàlla lu tax yàlla bàyyi ñu fi kon ñoo ngi leen di ñaanal di leen wax yàlla na leen yàlla yërëm te boole leen ci famille Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam ba ci fii ñu toog nii bu ci nit génnee àdduna te yóguñu ko ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm waaw alhamdulilahi rabbil alamin waaw di profité waale nag di jaale waale famille imam bisaan gépp hmm, suñu xarit sunu ustaas sunu partenaire di ko ñaan yàlla yaatal bàmmeelam yërëm ko jéggal ko ay bàkkaaram ko xaaral ko àjjana firdawsi tey nag boo gisee sama nuyoo bariwul mhm. damaa jommi actuellement nii la jommal ay xale yu tuuti mhm. ñoo xamante ni seen baasu ngénte kenn tekkeebu ko ñoo ma mhm. jommal Uh-huh. moo tax bi ngay ñaanal way dawlu yi. Uh-huh. di ñaanal tëdd ci loolu hôpital yi mais xalaat ne ñooñu dañoo fàtte seen bopp. Uh-huh. parce que bu nu bu nu xalaatee ñi nga xamante ne defalu nu yàlla dara. mu gàttal seeni fan. billaay defuñu yàlla dara. mu teg leen ci loolu hôpital yi. ñu waroon dellu seen yitte defuñu yàlla dara caabi féete leen ginnaaw. billaay nga gis ay xale yu ndaw yu toll ci seen digg àdduna. nekk ci li leen neex mm-hmm. di curux curux yi ah? di carax carax yi fu nañu dugg fa jël seen jël seen ginaar yi marine ko def ko marine di kër góor gu nu jàkkaarloo jañax ko ko ñoo koy lux-luxee nga gis xale yi góor yi jël seen genn gi def ko ne jinax ju ci pax bu mu gis na ci carax ñu nekk ci li leen neex nga yaakaar ni ñooñu tey ji jotul ñu toggaat nag si seen ruq man a kan xoolaat seen bopp xam ni carrément am na fu am na leneen lu warloog seen digganteeg seen i waajur yeeg seen digganteeg suñu borom lu dul toog xoolaat seen bopp organisé wu dem jàngi ñëw ci kër ga toog mais déedéet da gis kuy xëy di taxawal bu guddi jot mu naan kaasu kafe dem tëdd insomnie di ko bëgg a rey. Mm-hmm. man fi mu toll nii damay gis ay image yoo xamante ni ci ci ci ci ci réew mi. yu may yu may jaaxal ay xale yu ndaw ah laa lay wax uh-huh, ni ñoo uh-huh. xamante seen baasu ngeen de kenn tekkee ko uh-huh. li ma ci gën a yéem nag école yi école yi lycée yi université yi maanaam xale yi jigéen ñi ñu góor ñi ñi ci gën a tuuti ñoo la gën a wow bët xale yu góor ñi wow nañu bët at de puberté bi topp na leen koo ci waxal mu ne je suis majeur et vacciné xale yi jigéen ñi moom yàq nañ seen bopp bu njëkk góor a daan déverser jigéen mais léegi jigéen mooy faxasal boppam ba ba ba tuurli na ci moom hmm. ndax di bànneexu ci seen téléphone yi di yëg seen bopp ci ci ci ci kii waxuma la dara sax li njëkk jeex ci moom mooy seeni i ndaw tuñ hmm. xale yu jigéen yi seen i ndaw tuñ jeex na bu yàgg naanam luy loolu si xale yu góor ñi macca na leen <laughs> macca macca macca macca macca ba nu sàlli waxuma dara nag pobar nañ yi nen ba xale jigéen yi mag ñi sax ñoo leen gën a sax jigéen da ngay gis xale bu ndaw màgget ras yax yi commencé fënax dëgg la ndax foowum taat mhm. ndax foowum taat xale yi bëgg lu neex bëgg bëgg bëgg plaisir ñeme plaisir engagé ko yanu ko di dox ak ñoom non man man damay xool nii xale yi di dox nii ma xoolal kii ba pare nag li ma ci gën a jaaxal bu ñuy génn kan la ñuy bàyyi seen kër bu ñuy xëy war a dem école ba war a jàngi kañ lañ kan la ñuy bàyyi seen i kër est-ce que bàyyi nañ fa seen i yaay wala bàyyi nañ fa seen i papa wala bàyyi nañ fa ay mag wala bàyyi nañ fa ku leen wax dëgg ku leen naan sa colin bi wala nàngam xam nga sax solin garaawul am na ñoo xam ne bu ñu solee mën nañu dem dellu si tranquille dara du jóg ci ñoom. Mhm. loolu la ñu bindoo dañoo mën a solu sol bu sexe mais léegi xale yi dañuy extravagante nga gis koo xam ne dafay bënn ñaari peru bëtam yi gis koo xam ne day bënn ñaari paxu bakkan yi bënn tuñ bi bënn làmmiñ bi moom yaram bi yëpp da koy bënn ba bënn ba bënn fu fu fu làqatu mhm. bënn nañ fi làqatu yëpp tatouage nañ fi làqatu yëpp ba pare nag am audace bu toll ni di ko wone mhm. dangay gis koo xam ne jimbax bi lay bënn di ko wane nga koo xam ne ndunkurun bi lay tatouage mhm. def ci lu ko neex nag di ko wane ana benn jigéen boo xamante ni barki Serigne Touba dama ne ko su ma mënoon dagg sa ween bi yow sànni ko dama koy dagg audacieux bu toll ni jël weenam jël jël jël jël tatouage Serigne Touba daf ko ci kaw ween bi hmm. barke Seydina Mohamed jël tatouage Serigne Touba ne dumm weenam ne nii muy paccal ko jël tatouage sëriñ Touba teg ko ci kaw weenam nii. li jaay ne dafa gëm te gëmul sax. non mais fekkewul fi ñu gëmee loolu li gën a vulgaire loolu ana lan moo gën a ñàkk teggin loolu ba pare nag ñu koy gis ci yow man kooku bu bokkoon sama njaboot. ngay sumee ko fu ne dama koy lelli dama ko damay lelli loolu noonu fi mu teg tatouage bi dama koy dem day sama njaboot la damay damay dem ba fële le jël paaka lamset wala lelli ko parce que image boobu dafa salte ba pare nag noonu la réew mi toll fi mu toll lu ne la ñuy tatouage lu ne fu ne la ñuy tatouage fu ne ba pare nag di jël di jël lu leen neex di ko di ko di ko di ko di ko di ko tekki seen yaram yi mhm. xale yu jigéen yi boo duggee ci hôpital yi sama jigéen boo duggee ci hôpital élèves yi ndaw yi mhm. ñi nga xamante seen baasu ngeen te kenn tekkeegu ko je réglementé les mots précisément xalé yu jigen yi nga xamanteni seeni basu ngenté kenn tekké gu ko la wax mhm. bo duggé ci hôpital yi ñom ñoy ñom ñoy def ay planning waaw yaangi dégg mhm. ñom ñoy jël ay pili ay bérin mhm. ñom ñoy ñom ñoy dem def ay test grossesse ñoy dem di ci médecin yi di partager ak ñom ñuy yaq seeni ëmb ay xalé yu ndaw ak médecin yiñ ko saña wax non man médecin yoy considéré wuma len ndax ki mëna fen deug deug deug deug deug moy ki taxaw talal loxo nga prier nga wat comprendre nga. Mhm. devant tout le monde ne man sama liggéey li bokku ci duma ko def. Mhm. nga trahir sama fiya ndax alalu aduna ndax alalu aduna xale bu ndaw ko xamanteni yow mu jëm suba xamoo fu mu fu mu fu mu toll mu ñew dila def lo yene nga nga nga ànd ceeg moom. ba para nak du ñem fofu de. Mhm. bo xasse bo buñ la ko xasse ba defal dañuy jël sa numéro ñom ñoy wër wëlbatiku di la tëddeewaat. ngay biir ñu yaq ngay biir ñu yaq dila teddé ngay biir ñu yaq ñom médecin yi. man ragaluma li may wax parce que je parle à connaissance de cause da gis ñu ciy dund di ci di ko def di def lu leen saf mais est-ce que tey jii en tant que jigéen yow ngay yaay. ban gis-gis nga ci am ak fan la daye bi fan la toll ci yow tey jii bu fekkonte ni da nga da nga dañ la jox wàllu éducation xale yi. ban gis-gis nga ci am ban taxawaay nga ci war a am. waaw boo ma laajee ci loolu dinaa ci sawar <coughs> fi may commencer mooy première part bi benn côté. parent yi la ndax yow mënoo ne première ba trente amul benn jour boo moomal sa bopp te doo dem xooli sa doom des fois danga ko war a defal surprise dem école am jur fa xool ba xam ndax mi ngi jàng xool ba xam ndax cours la tàggu mi ngi koy respecté wala respecté wu ko ba pare jël bu dee ñaari prof la am ñoom ñaar ñëpp am amal jot nga am seeni numéro bu dee élève bu ndaw la toll ci ay 16 ans 14 ans fexeel euh, kii garde corps école bi kii garde école bi surveillance bi nga am numéro am waxuma nag dañuy corrompre kenn waxuma dañuy jënd kenn mm-hmm. dama bëgg ñu déglu ma bu baax mais mag bu dee naa ndox mu tàng suukar saa tax des fois nga ñëw fekk kii surveille école bi ne ko am sama numéro xool bàyyil ma ko xel dina la surveiller sa doom te sa doom du xam ne moom am na ku koy surveiller sa xel day dal ki koy jàngal nga am numéro am bés bu jàngi sawul dina la woo ah madam wala monsieur nàngam ah sa doom lu ko jot tey de gisuma ko bu dee da nga liggéey nga woote kër gi bu ko woo moom téléphone muy muus wooteel kër gi am numéro jànq bi ah yow mi ma bàyyee sama kër naka diw mbaa jàngi na te naan la waaw jàngi na nga woote waat ñëw na école wala ñëwagul woote naa kër ga ñu ne jàngi na bu dee ñëwul mu ne la ñëwul bu ko wax dara ndax boo ko woowee dina muus gis nga xale yi <clears throat> seen xel daf leen wër dañ naan wër ndomb mbër yi ni ñuy bëree ñu naan diw da ko wër ndomb xale yi seen xel noonu la leen wëree li ñu xam ñun ñu sëy ba pare sax xamuñu ko mm-hmm. ak ñoo capable danga koy woo mu créé xola benn boucan bu gaaw parce que xam na na su ko deful bu ñibbisee la koy fekk kër ga mu ñëw na la dama def soog ci yoon bi wala dafa am ku ma support ci scooter lii dal ko wala lii ba ko bu ko yàq bul yàkkamti danga koy bàyyi bu ñibbisi bu ko ne woote naa seen école bu ko ne nga topp ko ba am ay preuve leer nga lijjanti ay mbiram balaa mu lay teg gàcc nga jooyloo ko balaa moom mu lay jooyloo mais duñ ko def dañ naan sama doom jàngi na jeex na yow soit yow parent bi nga jëndal ko téléphone bu cher foog na sa doom mi ngi ciy jàng pourtant bu njëkk ba mag ñi seen doom yi dañ daan jàng te amuñu portable tey ku fi tekk ci réew mi ba doon fi dara jamonoom amul téléphone télésax sax amu ko bay am téléphone fix la te benn kër moo ko daan am koñ bépp fa lañ daan wuyoo te tey kenn gënu leen a doon dara ci dëkk bi mais pour ñoom bu ñu joxul portable seen doom jàng bi du avancé pour ñom buñ ko utalul ordinateur portable du xam dara ci ci ci ci ci cours yi pour lan ñu ñoo ñaka yaq suñu doom dama ci bolé sam bopp ndax yaay la way jur day am way jur day am jotu njabotam boko amé ba pare man sama doom dama koy wax chaque jour wóoluma ci kenn kudul sama bop weesoo suñu borom ma ko jox wóoluma ci kenn kudul sama bop ak sama yaay ndax man fam ma jaarale ba soma xolé beut bala nga xam li nga bëgg wax daf fay jaarale samay njaboot affaire bi lii la mais nga bàyyi sa doom sa xel dal lu mu la gëmloo rek nga day dem ba mujjante bi bu doon sàcc ba guddi da ciy boole ba cëkk day tàggoo kuur dem kër copain tëdd fa walla yow parent bi nga bañ a am doole gis sa doom di yor téléphone boo xamante ne leer na la ne yow parent bi di nga di nga liggéey ba retraité doo ko mën a jënd doo lijjanti fan la ko jëlee di sol yére yoo xamante ne day ñëw fen la ne la sama copine moo ma ko jëndal demal nga gëstu loolu xool soo copine boobu gëstul moom fan lay jëlee xaalis bu dee jëlewul xaalis nu normal jàpp na sa doom da koy def mais sa am na ñoo xam ne lu seen doom wax dañ koy gëm lu mu leen mënta dañ koy gëm léegi yow benn benn nit mooy jóge fee ca àll ba di ko may xel ne daf maa teg bët dafa sim fa nga sama doom waaye ñaangal mu wadd pour lan da ngay gis élève di fay facteur courant seen kër di fay ndox di jënd ma lu ci mel ni koor gi di ñëw imaginez yow ngay woor nga ne dangay ul ut yàlla sa doom wàcce la ma deux cent mille te xëyul gontul nga koy ñaanal naan ko yàlla na yàlla def ci yow barke kon yaa koy encouragé pour mu gën a bon parents yi na ñëw nañu gën a waxtaan ak ñoom ñu góorgóorlu ci njaboot gi. macha allah li nga xam ne solo trop. Mm-hmm. mais fi ma lay fi may fi may ñëwee ak yow mooy fi nga mm. xamante ni waajur yi amatuñu jotu amatuñu jotu topp kii wu xale bi maanaam di xam emploi du temps wu xale bi. Mm-hmm. parce que ñoom seen jëm bopp xamatuñu seen emploi du temps ñoom personne. Mm-hmm. Mm-hmm. waajur yi. yaa ngi dégg. man damay wax ni dans un premier temps li nga war a njëkk de ci sa njaboot mooy jàngal ko. Uh-huh. jàngal ko jub gis nga xale ni ngay ni ngay communiquer ak moom. ni ngay uh-huh. ngay ni ngay ni dëkkee ak moom. Uh-huh. loolu lay génnaale dañuy wax naan ay yaay yi nangam gis nga des fois dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy bañ rek. mais ndax neexul ba neexul. mais éducation ah. base bi yaay la ak papa. parce que doom di nga def ci moom loo xamante ni. dina am benn façon booy communiquer ak moom benn façon booy dundeek moom dara du fees ba bëtam. te dina am sa kersa. mais yow en tant que yaay wala en tant que papa tant que amoo sa say doom sa doom mënutul am sa kersa sa doom na bu demee ba amatul sa kersa bu demee ci mbedd buy def du la sóor te nag bu demee bay bay bay def di ko nëbb dina toll mama boo xamante ni nga xam ko nga ñàkk koo xam buy def dootul nëbbatu da ngay nekk ak moom di rayante moom ci biir kër gi ba nga far bàyyi ko bu mu far la nag gedd moom en tant que doom suur la jëm yoonu boppam jël yoonu boppam ñu sikkal doomu jaamu ci mhm. sikkal sikkal baay ji fekk na ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dafa am malentendu bu waroon am dès le début mhm. comprendre nga man nag dama xamul ci ci ci ci ci ci ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk gi moo moo moo moo tax yooyu détails yooyu di am mhm. wala ci matérialiste yi nga xamante ni waajur yi matérialiste nañ ko xale yi teg nañ ci seen bët mais man damay damay dégg souvent ñuy wax naan matériel yi dafay yàq xale wala nangam non mais xale mën nga ko mais ak la ngay def ci téléphone ba da nga koy yee tablette yu ndaw yi nii xale yu jigéen xale yaa ngi ciy yeewu xale yu ndaw yi ñu ngi ciy yeewu bu baax a baax parce que boo leen ci téléchargé ay Mickey yu yoo xamante ni dafay dafa dafa am yeneen yenn yenn genre texte yoo xam ne dafay dafay tax xale bi di ko parcouriser. Mm-hmm. dina tax mu dégg français dina tax mu kii nga téléchargé ko ay jeux yoo xam ne ay calcul la. Mm-hmm. comprendre nga. parce que da ngay gis ces tablettes yi da ngay gis ñuy télécharger bay télécharger ay ay ay ay ay nag ay fas ay mbaam ay nangama nanga comprendre nga xale bi day maîtriser yooyu dafay xam turam ci français xam ko ci mm-hmm. baat mm-hmm. baatu olof mm-hmm. est-ce que comprendre nga xale yooyu nga koy télécharger ci tablette am bu ko ci defal puce boo xamante dañ ko ci woo di ko wuyu tablette boo xamante ni da koy télécharger lu ko lu ko koy luy yokk xelam mais bu amee puce wala mu am YouTube xale bu maîtriser téléphone am fu ne la fu ne fu ko neex lay dugg mais yow en tant que yaay yooyu yaay jël xale bi defal ko YouTube ci téléphone am. Mhm. comprendre nga muy télécharger lu ko neex YouTube bi lu nekk ci nekk. billaay ah internet bi lu nekk ci nekk. Mhm. xale yi di ko am kooku bu demee ba tàmm téléphone. Mhm. bu ko boo ko nangoo ci moom sa da ko uti feneen. da koy uti da koy lijjanti comprendre donc yooyu noonu. pour pour pour pour pour nga jox xale yi man ñaawaluma ko. mais defal leen ci loo leen yee. et puis xale bi nga xamante ni da nga koy soxla 24 heures sur 24 muy ngay liggéey mën nga ko utal téléphone. Mhm. mais mettre ko ci condition yi normale d' abord. def ci xelam ni ko carrément waroo gis dara lu fes sa bët loo soxla ñëwal ci man comprendre nga tey da ngay ñàkk bu subaa da ngay am boo amee na nga gore soo ñàkkee na nga gore donc dafa am façon communication bu nuy communiquer xale xale da ngay mhm. communiquer ak moom comme yow sa moroom la. Mhm. rawatina doom bu li nekk ci yow yëpp en tant que yaay nga wax ko sa doom ne ko carrément lii dafa nekk uh-huh. ci man lii dafa sax ci man ci man la bokk uh-huh. ni muy saxee ci man bokk ci man mi ngi ci yow boo defee nangam ak nangam ak nangam ak nangam uh-huh. baax na ci yow boo defee nangam ak nangam ak nangam bon na ci yow comprendre nga mais léegi da gis xale yoo xamante ni ni seen yaay di doxee la ñuy doxee dañuy toppandoo seen yaay seen yaay am nañ habitude bu bon dañuy dox di laal seen wenn di dox di laal seen taat yi xale la bu bokk ci dox muy doxee noonu comprendre nga. Mm. façon texte yi ñu utiliser wax yi ñuy utiliser yooyu noonu yëpp. Mm-hmm. dafay dafay dafay dafay ci xale ba. Mm. bu demee da ngay seen école sax da ngay gis xale bi moom moo fi ëpp xel. Mm-hmm. xel parce que li muy xam. voilà moroom yeneen moroom mi duñ ko xam. te ma yokkal la ci benn affaire. Euh, doom da ngay fexe mu rus la moo gën mu ragal la ndax bu la ragalee bu la gisee day normal mais su la gisul day def lu ko neex. bu la rusee nag tout le temps day rus a def loo xam ne après da nga koy yëg mu la mu la ciy rus a xool. parents yi dee leen fexe seen doom yi leen am seen kersa mooy gën nga def pexe boo xam ne sa doom da lay ragal ndax bu la ragalee soo toogee dina moytu li ngay bañ de waaye soo ko wanee ginnaaw gisatu la seen bët yi defatul ñeent ah boobaa day tojum réew bu ba ñu waxee sa doom a def lii doo ko de doy na waar daal yal nañu yàlla dimbali rek mhm. en tout cas am naa mbégte ak contentement mhm. tey moom lu ma doon naqaru la loo xamante ni dafa dafa dama ko doon naqaru dëggantaan parce que man mhm. xale yi ndaw yi ñoo ci jaaxal. waaw mais amaan nañ mbégte ak contentement bu baax a baax ci ci développé li ñu ci développé. parce que ñun ñëpp dañuy dañu yor njaboot. suñu njaboot yi màgg ku xamuñu ci ñoom dara. comprendre nga xamuñu fu ñuy mujjee ëllëg. mais waslu ci àq dafay am solo. comprendre nga xale yi aussi tamit ay xel ngeen yor ay nopp yu gor ngeen yor ak yaramu gar mi ngeen yor déggal leen seen i waajur yi. dem jàngi wàcc dugg seen i biir kër fexe boole ci seen dundu jaamu yàlla. ay maro leen jur de ayca ñuy waat képp koo xamante ni yaa ngi doon suivre ah waaw di kontaan ci emi di kontaan ci zemi di bég ci ñëpp di jaajëfal ñëpp kullikum koo xamante ni yaa ngi ci diaspora bi rek bëgg nañ la jaajëfal nañ la ayca wasalaam